La wig la going crazy la. Come on, la wig la. Mm. Uh. xalem yee damay dem dara du ma tee mon queen damay dem damay dem dara du ma tee come on soo bëggee mu tëdd danga ko war a tooyal soo ko tooyalee mu tëdd ma living conditions. Jump me for me, again. baaxee waruloo alaa ku bon di la wecci ku bon su la weccee est-ce que yow baaxoon nga kon yaa ku bon kee am hmm. I learned su fekkee nit danga lay def loo xam ne neexul la soo ko toppandooree di ko def lu ko neexul moom tam yaa moom a xem what am I talking about yàgg nañoo dégg wax boobu noonu boo dañ ko dee def joke sa site doo si matter you have to see my video or not joke sa site man at bu es bi nii damay laan anyway I never really overdo that def naa ko waaye ma ko def lu bëri bëri simply because man dama nekk so open minded su ma laay good nit sax soo defee dara loo xam ne ni you know su ma ko share is no harm dama ko dee share waaye du ma share vidéo wax ne par exemple dafa nekk vidéo Africa bu bon wala vidéo boo xam ne dafay yàq dere nit ku ñuuli torop you know wala vidéo boo xam ne xëy na yaa ngi saaga ndey and stuff like this or just horrible video but su dee normal vidéo la su eboo laay ma sa mbir wala ànduma ak yow si leneen si yeneen vidéo yoo def sax dama ko dee share because su fekkee ne par exemple nga ne kii laay guma ko du ma see anything lu def hmm yaa ngi jàng sa xol bi soxot te soxot boobu noonu hmm du du yàqal kële na le dara lu tere koog noonu xam wërsëgam waaye dina la yàqal yow parce que dina tax yow sa xol bi min soxot parce que suñu xol bi lu ma jàng si àdduna as I grow mooy ne suñu xol bi luñ yàgg def koy miin soo defee soo defee soxot tey kële nga def ko soxot ëllëg kële nga def ko soxot gannaaw ëllëg su yàggee sa xol bi dafay miin def soxot. su yàggee sa xol bi du ko gisee as soxot moo tax ñun africain ñi mun a defante nii te mun a hmm. parce que duñ dee gisee soxot as soxot dañ ko dee gisee as moo defoon lii teddu moo tax man dama def lii teddoo moo defoon lële moo tax dama def lële teddoo moo defoon lële <laughs> moo defoon lii moo mel nii teddu moo tax man dama def li to bi honest aduna lu ma jàng mooy nit ñi soo leen toppee doo mus a def lu baax te suñu moo tax man onot nit ñi soo leen toppee doo mus a nekk ku baax yow dangay decide rek pour nekk ku baax pour yow bul nekk ku baax pour nit ñi fay la lu baax I learned that the hard way dama jàngaloo noonu in a very hard way you but ñun african lu si bëri duñ dee jàng loolu ba xëy dee because nu ñu dee yaree la it's all down to nu ñu dee yaree it's very sad you know so defante bu ñu dee yaree moo tax ñun by force nit def dara lu baax balañ koo defal lu baax te yow sooy xaar nit ñi def lu baax pour nga mën a def lu baax kon yow baaxoo parce que nit ñi ñoo lay contrôle sa baaxaay bi dangay defal nit ñi lu baax rek mu jógee sa xol yi parce que yow nga bëgg dund suñ suñ la defee lu bon ñoo koy yëg suñ la defee lu baax ñoo koy yëg nga def leen lu baax rek soo ko defut doo def dara lu baax you know it's very loolu mooy the real life you know jokes aside but yeah so does does it matter like I say sama video bi or not man moom xat bu xees bi ñëw nii you am naa already so, so many things that you know that I have to work hard on but including this just be who you want to be tenge which is soo buggee nekk ku baax wala nga bugg a nekk ku bon bul xaar nit ñi di la def lu bon pour pour nga bugg a bon gi nga soo buggee nekk ku bon bul ne da xaar nit ñi def la lu bon pour nga nekk ku bon just nekkal ku bon rek it's no need to be hypocrite this is just the reality su dee da nga bugg nekk ku baax tamit just nekkal ku baax rek because da ngay confuse sa mind bi one minute yaa ngee baax one minute yaa ngee bon because sa baaxaay bi mu ngee xaar nit ñi mu ngee xaar pour nit ñi bës bës bouton bu baax bi si yow nga soog leen a sa baaxaay bi su ku bës bouton bu bon bi nga woon ko sa mbonaay bi ku bës bouton bu baax bi nga woon ko sa baaxaay bi kon yow doo musa doo musa contrôle sa own feelings te doo musa xam doo musa seetlu si benn muut doo musa seetlu si nit ku baax wala nit bon te yaa ngi fu mu yaa ngi wiire si àdduna bi te yaa ngi fële ëllë yaa ngi fële gannaaw ëllë yaa ngi fële ori woy boobu noonu ko waxee de so ay learned that hard way man sama bopp nii laa doon dundee xat yëpp si suñ community bi let's bi real dama dee fight nag pour bu ma ko over def waaye noonu laa doon dundee man tamit xat yëpp but promise naa sama bopp to to definitely absolutely not allow people to just press whatever button they want me to be at because dama really emotional ñun ñëpp dañ am emotions okay ñun I think it's West African thing you know ñun Gambia ak Sénégal we're really unique you know we're beautiful and emotional and like really loving and caring so because ñun dañ am this loving and caring thing daf dee tax ñuy just lose suñ suñ you know emotions yi you know according to what people want us to feel you know if people suñu ñu bëggee ñu mer ñu press the good nice and kind button suñ bëggee ñu content sorry ñu press the nice and kind button suñ ñu mer ñu press the horrible angry button and we just following whatever they want us to do so I learned hard way to not follow people to just leave them maybe understand that maybe they're having a bad day or maybe they're in a bad situation with their life or maybe they're just not happy because the reality is nit koo xam ne kontaan dëgg-dëgg si àdduna du ñëw rek di la merloo that's just the reality even su dee man maa ko def man wax naa leen suma yeneen vidéo yi ma dee jombri allo I'm not supposed to be jombri abri and down but I died because this person did that or my community did that they can find a bare wax naa leen ne dama mere suma community bi wan wax naa leen ko depuis day de man moom am simple dama la dee wax the truth is up to you do what you want with me so wax naa ne dama mere suñ community because of suma child marriage bi and just stuff like this ah but maa ngi fight di xeex pour ma xam ne child marriage bi xew na ba pare léegi def na si man ma continuer di yuuxu si community bi di jump rek wala ma just calm down and xam ne community bi dëgg la ñoom ñëpp defuñ ma ko dëgg la ñu ngi continuer di ko def yeneen xale yi ma yuux on not dina xapun si yeneen xale yi léegi def na si man ma yuuxu boo xam xat attaque de wala ma calm down and still may mën naa koo wax and wax suñ oda issu without being so emotional that you can see I'm like so serious yéen góor ñi billahi yéen su ngeen bawul topp jigéen di leen nangam jabar ji ngeen am nangam jigéen ñi ba seen you know this kind of thing so I'm gonna try you know to continue to to not to work harder to not just let my emotions and my community to get into me too much but ñu ñu si bëri suñ community bi ak suñ emotion yi daf get to you too much without realizing okay this is the reality li moo tax ñu ñu si jump bridge you know saka si social media bi you know and just even suñ nekkul social media di jump bridge sax dañ dee jump bridge si suñ xarit yi you know wala suñ jabar yi wala suñ jëkkër yi wala suñ doom yi ñu ngee jump bridge on them without knowing you know ñu ngee hmm, because suñ dafa neex dafa baax waaye dafa naqari trop pour nga survive si because mooy community boo xam ne duñ dee nangu nga wax lu la métti community boo xam ne doo wax lu la métti doo mus a kontaan that's the reality because raison si bu amul dialogue doo mus a kontaan raison si bu ne rek fu mu jaar kenn ku ne mën a wax lu ko métti moromam ki déglu ko witaaw mer kële tamit ba xel ne ah dëgg la kii lu mu wax jaaduwul war naa koo xoolaat waaye ba war naa xab ba nangam bi nii kële xoolaat ne ok kii tam lu wax dee jaaduwul war naa xab bàyyi nangam bi yéen ñëpp ngeen mun a understandante waaye communauté boo xam ne kenn alaawul kenn wax lu ko métti ku wax lu ko métti rek ñu ne kii complain rek kii blame rek kii wax rek dafa bari wax kii moom nii rek kii moom nëli rek kële moom nëli rek moo tax ñun ñëpp a ngi pretend di noppi ak métit bi moo tax ñun ñëpp ngi waaja dee man moom génn naa si pretend bi xat yëpp moo tax ma nekk Facebook di yuuxu ñetti xat léegi sonn naa si noppi bi xat yi yëpp ak lu ma doon métti moo tax ñetti xat yi yëpp may yuuxu Facebook yee bon am na si ñun ñu bëri ñoo xam ne su ñàkku di yuuxu Facebook sax dañ dañ ko kip bi ko ñemewuñoo yuuxu Facebook comme Ami Diop par exemple waaye ñu ngi kip métit wii nii you know ñu ngee dee ñu ngi yuuxu seen doom yi yuuxu seen jëkkër yi wala yuuxu seen jabar yi wala jos because ñu ngi am yu bëri yuñ jaar yoo xam ne su dul child marriage sax xam na yeneen yuñ jaar yoo xam ne mu ngi leen mitti te duñ ko mun a wax seen jabar yi duñ ko mun a wax seen duñ ko mun ñu ko képp you know nga gis di dund si yooyu noonu duñ ko mun a wax kenn ñu ngi ko képp ba pare gën a tax ba duñ dee a wax kenn mooy xóoluwuñ kenn dañuy wax ne su ma ko waxee kii àdduna bi yëpp dinañ ko su ma ko waxee kële àdduna bi yëpp dinañ ko yëg su fekkee ni ma ko waxee du ma nobati su ma ma ko waxee dina xam ne lii moo ma naqadi moo tax may naqadi deret so dafa use loolu against me parce que de réalité yi ñu nit ku ñu noonu la ñuy def ñu use loolu lu la lu la jot ah, against yow instead of yu use ko dimbali la dañ ko use di la xas so loolu moo tax ni ki mun naa ñu sa takk la par exemple man tey góor mun na maa takk suñ jotee dara ami jooy da nga naqa dara sa sa child marriage beeta aca daa seet xam na benn góor wax def ma bëggoon takk fii nii mu ngi dëkk Sweden wuu ak maa lay goon góor boobu noonu nag waaye ba mu commencé ma suma early marriage bi straight away like you've not even married me musu ñoo gisante sax nga may xasee suma early marriage bi mu naan ma yow moom you know akamuta ila jisuka candidate because of ila ñing early marriage thing <laughs> and what he did was so wrong to me because uh, you know daf ma ne moom yaayam rakkam la doon saaga ndey si kanami yaayam parce que rakkam dafa def xaw ma lan ne ko that's insane ridiculous ma ne ko yow sa yaay naka lay toogee ngay saaga ndey sa rakk di saaga sa yaay sa yaay su fa nekkul sax ku kan mooy saaga ndey rakkam mu ne ma hee loolu jarul ngay waxee nii di raise sa voice on mi ma ne ko wuu man duma mun a nekk yow góor buy saaga ndey boppam kon man suma ndey lu mu koy def ma ne ko parce que man su ma naanee sàngara ba maandi sax du ma saaga sa ndey wala suma ndey mu ne ma yow da nga naqari deret sa child marriage bi moo tax da nga ko war a fàtte fàttewuloo ko ba tey moo tax nga koy wax <laughs> a si laa xalaat ne jarul may foog ne góor yi ñëpp ñooy ñëw di ma xas child marriage foog naa ne góor nit ki su la bëggee xas daf lay xas child marriage or not yee xam ñu ngi si bëri dañ min su nit nanga ñu ko yow nii ah, da nga naqas <laughs> rek instead of just realizing that to be honest nit ki lu mu wax dëgg la you know and I should even apologize if I have to or try to make them understand that I'm not like this or da da and then after mu ñëw di ma make understand that he's not like that but it just doesn't work again I just never feel the same again I'm like <sighs> you know góor bi damay ñëw see ak ba pare every two thing rek mu may xasee suma child marriage boobu so it's like di loolu moo dee tax ba ñun duñ dee ñemee wax lu ñu jot you know because soo waxee lu la jot rek téeméeri xat nit kooku mu ngi ko xamee di la ko xase nit mun naa dundu ñu tubaab yee nit ku ñu la seeyam ñun ñu si dund loo xam ne nii ñu métti bari na moo tax ñun ñu bari ñu génn di ko wax ñun ñu koy wax nekk na dañ koy pour ngeen yërëm ñu wala pour ngeen xasee ñu ko you su ngeen ñu yërëmee pare ngeen xasee ñu ko tamit understand leen ne dañuy wax pour bu leen ko nekk di def buñ ko nekk di def each parce que baaxut fekk bàyyiwuñ di ko def each other rek ñun duñ mun a nekk community bu kontaan bu buggante bu baax bu yërëmante duñ ko mun a nekk parce que community boo xam ne la dañuy hot each other di di di di di métital each other te kenn du ñemee wax métit wi kenn ku ne a ngi xamee sa mer ak sa métit moo tax lu ndaw rek nga dégg hmm. soo xarutee ak ni sa xarit bi du dee nekk honde parce que ñu ngi si bëri parce que kenn si yéen moso de tay kenn si yéen mu ngi am métit boo xam ne mu ngi nekk yow di smile waaye lu ndaw rek mu ne xoolal kii rek xoolal kii lu moo def xanaa ami ami waroon naa ñëw ami ci waroon naa ñëw teen mi go ñëw kii nii lam maa de what kind of is this Ami Jool lu tax mu di ma aabal lii sax lu tax deful lii Ami Jool lu tax lële Ami Jool lu tax mu jox ma 50 pound present kii sax du xarit bu lu tax muy xaritoo Kumba te du shopping waxul ma ko Ami Jool lu tax mu dem Birmingham waxul ma ko Ami Jool lu tax mu jënd cuubale waxul ma ko kii du xarit bu baax lu tax démb bu ma solee suma mbas suma mbesen bi Ami Jool waxul ma ne nice na kii du xarit si biir nga xamee te mënoo koo wax hmm? wala nga di ko dundu right now métti woo daf la dee topp lu ndaw rek nga mer foo tollu rek yaa ngi wut naqat nag parce que ñoom ñun ñun doomu adama njaay noonu lañu yàlla bindee naqat boo si dundee ah nga ñun nit du ñuy jàng doomu adama njaay du ñuy study human being loolu tax tubaab yi raw ñu naqat boo ko dundee ah dafay tax sa yaram wi dafay miin di daw naqat dafay miin di sot daaw naqat léegi soo gisee lu ndaw rek yaa ngi séentu beneen naqat lu ndaw rek nga ne ah kii naqar bu may dundoon rek kii dana ma ko jox naqar bu ma di di sax naqar bi rek écoute bi nit moo la doon dóor trop bu nga nekkee xale wala nit moo la doon xas wala nit moo la tëddoo wala nit moo la def dara wala nga xam jëkkëru bon wala nga xam jabaru bon wala nga xam sa boss si liggéeykaay bi ku bon si yow écoute bi all different type of naqar ok wala even nga jos dund lu métti daal different métti métti daal ok so écoute bi all type of naqar but it's not just child marriage naqar ok léegi soo dundee métti yooyu noonu te yow toogoo nga reverse nga nga wax ko ak nit xëj na koo xam ne dina la ëpp xalaat mu weccante yow xalaat mu ceeñ sa xol bi wala nga jos jàng nga jéem a try bi dañ ko dee ooyee traum traumatise trauma or whatever comme soo jaaree lu métti nii yenn yi ikut bi nit nga bëgg moo dee you know sa yaay wala sa baay wala sa xarit wala sa jabar wala sa jikka ikut bi all type of naqar ok soo dundee benn naqar bu métti nii yenn yi ah, sa àdduna te naqar gëstu gëstuwoo noo koy fajee ah dinaa def video on my YouTube channel about how to faj naqaru métti like man lu technique bu ma dee use and it's really worked on me especially ni but daf ma jël so long bala may use bala may use technique bi nii because like I say ñun culture bi duñ la dee jàngal nooy fajee naqar dañ la dee wax rek gëmal yàlla gëmal yàlla look gëmal yàlla is good but sometimes gëmal yàlla alone is not enough I know yoon ñu si bët di nga ne gëmoo yàlla moo tax de xamoo yàlla ok ñun ñaata sax ñoo xam yàlla dëgg I have to just sort for a minute there ñun Gambia ak Sénégal community ñun ñaata ñoo si duggal suñu doom yi xar Quran bu ñu nekkee xale ñu xam yàlla dëgg xale yu fa magee ni man bëri nañ jàngoo xar Quran jàngoo English jàngoo dara wala ñu jàngal la English sànni xar Quran bi fële. léegi yow loo mun rek mooy Fatiha ku la si bu rabi Fallaxe ku la si bu rabi Naasi. ayatul kursi boo lokkee nga koy mun ayatul kursi ma demee ba mag laa ko laa ko jàng yee la ma ko su ma soo ko jàngal nii soo Quran boo ko hibbee mënuma see riit kaay ma rey la sax waaye mun naa jàpp normal jàpp julli yooyu noonu sangu janaaba yooyu noonu jàngal nañ ma ko obvious lañ la ko dee jàngal asa doomi julli jàng basic jompa biri saari fatiha close biro bi fale close biro bi naasi kul huwa yooyu noonu fenes julli jompa biri julli but how respect this person than to gëm yàlla so much with the nightmare that you know that you put them even know ha what just because ñu ngi togg xaj benn waxtu rek dégg you know xajjuma benn waxtu rek dégg imam bay xutba rek da set léegi boo boo boo dogee suñ baat yi sax fa ñuy gëm yàlla look waxuma ne yéen du ñàkk gëm yàlla de waaye yenn métit yi doomu aadama njaay di dund you need more than just gëm yàlla gëm yàlla bi have to be number one xam naa loolu kenn du jël something def ko number one waaw façon yi diine boo manti ne sa gëm yàlla mu war a nekk number one nit ku gëmut yàlla sa àdduna dafay gën a naqari parce que yow da ngay jéem a faj àdduna bi ak sa bopp xam naa ne danga war a gëm yàlla waaye gannaaw boo gëmee yàlla pare tam danga war a understand nooy baalalee nit ñu la gaañ ñu la def métit woowu noonu ak nooy gisee àdduna bi ak nooy jos def ba nga nekkaat nit ku kontaan ku happy wala su dee mosoo koo nekk sax ne ñu ñu bëri mosuñ koo nekk ndax depuis temps mi xale la ñu nekk di ñu dóor guddee bëccëg di ñu xas di ñu bundu xataal mosu ñoo nekk nit ku kontaan properly happy full two days of being happy sax normal person ah moo tax ñu lu ne rek ñu mer one minute ñu ngi smile two minutes ñu ne ñu ni gaynde gu you know gu xiif ñu nit ñu àdduna bi xamee nañ nañu ko soo de war a find naka la ñuy def ba génn suñ trauma yi because ñun ñun ñun bu dee fukk lañ ñun juróom wala juróom-ñett yëpp a jaar si ñu nit ku moo tax ba ñu nit ku soo waxee ne yow dangay baax jox su nit ki defee lu baax nga baax yow doo baax bañ suuli la loolu jàng naa ko da we way ñu nit ku parce que foo jaar danañ la tooñ foo jaar danañ la wax luñ la war wax foo jaar dañ la xas foo jaar dañ la leb bañ laa fay foo jaar rek danañ la def lu jaar nga def lu bon parce que ñun ñëpp a nit xel ñun suñ ñun suñ ñun suñ ñun lépp genn wàll gi yëpp fañ nit xel bi may wax nii te xamuñ ko sax that is the reality the sad truth is da xamuñ ko sax fa seetaan maa si amit yóbbu yi di leen di leen xas di leen jooy kii moo bari wax saa yu nekk Facebook rek la subhanallah kii moo am énergie kii waaye kii nit la fekk yow fi nga toog noonu naan kii nit la yaag moom yëpp wéde di kon de nga koo yëgul rek look maa ngi dem man suma maas yi nekk suñ communauté bi di wax nekku ne dañuy wax rek pour ngeen jooj ñu de gannaaw bu ngeen ñu joojee pare ñoo la gën a xam ne yéen ak ñuy jooj suma maas di xam nañ ko 100 pour cent waaye because xam naa lu ma suma communauté bi def suma communauté bi neex na baax na nit ñi rafet nañ gëm nañ yàlla ñu ñu si bëri nit ñu baax lañ waaye lu tax ngeen gis ngeen di gis ñuy dawante bay xam xariti tubaab yu xéefar yi nga xam ne gëmuñ yàlla di daw ñun nga xam ne feebar nañ lu tax ñun ñuy sëriñantu ñun ñi la mën a togg xañ gis la ngay romb xañ ba lu neex neex ñu xoola ne kaay xañ maa suma yaay yi bëccëg bëccëg yi romb taym boo tay mi xale suma yaay fay togg ci ganaar nga xam ne ñun ci ganaar duñ ko daan lekk bët bu set fa ñuy kontaan mu seen bëccëg bay romb mu ne ko kaay xañ fa ñuy mer ba naan ko yaa bëccëg bi dana jeexal ganaar yi mu ne hey lii rek rek la baleen ko nga gis ñun ngay gis gan goo xamut xubbil ko sa néeg mu ñëw nga jël sa yére yi sax jox nit nit de nit ñi ñëw jaale joxe xaalis jaale ba nit kat mbokkam yi dañ mën nañ cee dund ci ca jaale boobu noonu lu ñu noonu yenn yi lu mat xati yàlla sax mën nañ caa départ du jeex nga ne ah waaye communauté bi baax nañ kuñ gis rek smile la ah, am yow rek ah yow rek si jonga ma rafet nga oh di sànga yaa rafet oh ñëpp naan Gambie ak Sénégal nit ñi ñoo rafet te baax waaye di same time ñu ñu neen xamante ne su ma yenn wax yi ko wax si loo foog ne moo waral loolu foo wicc ñu ne ñun pretend rek ñun fake rek ñun hypocrite rek naa fekk rek fake àdduna rek koo ci gis muy reeta fekk xolam bi num ñuulee num bonee ñun niñ mel di dawante di sëriñu xante di naa fekk xante ñun ñi ko deful bëriwut def naa ko man mi ñun ñëpp jaar nañ si nañ waxante dëgg rek gis nit di ko smile mu jox la gannaaw nga wax si moom la warta wax ñun ñëpp jaar nañ si def naa ko man mi nit rek laa dëgg la musuma koo over def nag waaye def naa ko tamit xam naa si sama wàll ni yéen ni de lu tax ngeen gis tubaab yi nga xam ne sax xamuñ yàlla fi ñu jëloon def ñu jaam ñu foogee leen nit ñi bon ndig jaam yi ñu daan def waaye tubaab yi fa ñuy toog ak yow wax ak yow bu ñuy wax ak yow buñ la buggutee it fañ lay wan ne bugguñ la ñu danañ lay jëw waaye ñoom comme ñun niñ koy defee mënuñ noonu de ñun fa ñuy ràng palang jëw bi koolante xendus téléphone yi jëw nit di ko tuumaal sax boobu di ko jaxase jaxase ay mbokk jaxase ay xarit jaxase nit ak ni noo boosam mais nit nit ñu xamee feebari ndof te fekk ñu ngi sumaay nag ne jog solu ba jag toog dinaa ataaya mel ni nit ñu wét foogu leen ne fañ fañ feebaram te yëguñ ko foogu leen ne li tax bu ñëwee ci tubaab yi di daw ñu ni neen di wuti tubaab ndeysaan ngay dox si mbedd bi boo gisee nit ku ñuul mu lay daw jigéeni américaine bi ma doon liggéeyal noonu kuy jaay kéeg bi noonu loolu la ma doon wax <clears throat> mu ne ma ami ma ne ko ah mu ne ma yéen Scotland bi nga dafa tuxu si fii fukki at si gannaaw nitam ki Scottish jëkkëram bi mu ne ma yow dee ame man de dama dee gis nit ku ñuul yi fii waaye kenn melu si ni yow yow danga dee nekk nice friendly soo ma gisee waaye yeneen nit ku ñu ni su ma tasee ñëw supermarket sax jos even jàng beneen ñu may liggéeyal noonu mu ne ma su ma leen di waxtaanal dañuy ras mbala su ma leen di gis rek haay smile pour buggale def xarit gars yi dañuy ras xaw ma nag li ma xamee American accent moo tax bugguñ suma American accent bi te ma nekk black American waaye ñun de ñun slavery lañ si slavery bi lañ jógee te yéen ak ñun yëpp benn lañ lu tax ngeen di ñu def nii ñun Amérique sax seetlu nañ ne yenn nit ku ñuul yi bugg yu a jógee Afrique yi si bëri buggu leen ñu tey dama la ko bugg a laaj parce que xam naa ne yow ku neex dara nga ku easy nga hopefully nga jox ma da answer why ma ne ko ah man de I don't know all the answers parce que man sax yéen nit ñu li bari noonu lañ ma dee def dama dee létt fu ma dëkk ni Edinburgh su ma gisee nit ñi moo tax dama noppaliku sax pour yóbbaale ba business card soo yóbboo sa business card bi gis leen supermarket bugg leen a jox business card ñu lay daw nga ne hi sister hi ngay rus sax nooy ñëwee di ko jox business card ngay daw ma ne ko man de dañ ma dee def loolu ma ne ko nag ñun de xamal lu tax ñu dee def loolu mooy mu ne ma ah ma ne ko du ne ngaa nekk américain moo tax de ma ne ko ñun day wóolu xadi hante moo tax waaye expliqué lu ma ko lu may wax nii yëpp lu tax ñu wóolu xadi hante yu no dëdëdë dama ko ne rek ñun day wóolu xadi hante ñun africain yu bëri fii sax even gambien tu sax tey tey su ma tasee woon ak gambien si town bi fii tey mu ne ma ah, ma ne ko su ma ko bëggee def xarit si saa si mu xam ñaari xel buy fukk la ñoom juróom ñetti yëpp danay xam ñaari xel xëy na ñaar yi rek kon ñooy nangu pour nekk ak man xarit mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko ñu nit ku ñuul yëpp la nag du Kenyan du Gambien du man xam naa yeneen client yoo xam ne duñ Gambien man ñu may létt ñëpp ñu si bëri duñ Gambien parce que Gambien day mun a léttante ay Uganda Kenya you know dëkk yi ak yeneen student yi day ñëw fi di study and stuff but dañ ma ko dee wax saa yu nekk ne seen nit yi dëkk yi dañ leen dee daw fa ñuy taseeg ñoom supermarket wala taseeg ñoom si palaas xam ne kii suma dëkk la jógee xam nga yéen ku jógee sa dëkk danga ko dee xàmmee waaye su ñuy jëm wax a ñëw rek nit daw mel ni kuy daw dëmm te boo ko seetloo ñun ñiy dawante yépp kenn koo ci jox kaamil tey ne ko waatal fii ndax yow sa digganteek yàlla nit ku soxot nga te bon te xañaan te siis sa xol bi ah du ko waat <clears throat> su fekkee def na lu bon si gannaaw sax def na mistake sax parce que ñu ñëpp doomu aadama jaale du tax mu waat ko xam nga lu tax parce que daf koy wóor ak raay bàmmeelam ne soxotut soxotut pie soxot muy ñun ñëpp ñuy dawante nag laa la wax tuur soo léegi lu tax ñu dee def yi soxot yi kon buñ soxotut parce que yi soxot yuñ dund moo tax ñu di ko def soo dundee yu soxot yi dangaa nekk xale sa waajur yi def la ko te notisuñ ko wala xaaduna jos def la ko wala jos like I said soo xamee métit métit bi écoute bi nit nga bugg moo dee wala different type of métit ah? daf dee tax doo xóolooti doomu adama njaay parce daf dee tax métit doo ragal pour joxe ko su fekkee fajoo sa bopp laa wax de mm-hmm. soo faju sa bopp ba go through this this type of thing that you are a new person waaye loolu ñu nit ku ñuul xamuñ ko tubaab bi ñoo ko xam tubaab bi nga dee gis ñu go through trauma ñu reverse xut dem xuti knowledge dem xut place yi ñuy dugg génn ak bukk yi ñuy read ak type of knowledge yi ñuy dund yoo xam ne dañuy nekk new person nit ku xees waaye ñun nit ñu xamuñ loolu li ngay dund loo ngay continuer rek di manage di muñ rek di continuer di manage di pretend di muñ di continuer di manage no gi nga nit ki gaañu du wut jox sa yaram bi mooy gaañu sa xol bi daf dee gaañu sa xol bi su gaañoo soo toogut nga lijjanti nooy fajee sa gaañu xol boobu fii ngeen si àdduna bi naqar dana la rey naqar dana rey yeneen nit ñi ngay dundal soo xamee jabar wala jëkkër wala doom wala anything yërëm naa ñooñ soo xamee xarit yërëm naa ñooñ soo anything yërëm naa ñooñ this is the reality so suma maas yi dee ñëw di yuuxu bu suñ communauté bi ñu bàyyi seen jikko yu bon yi dëgg la nu ma ko dee yuuxoo yéen yi ma koo yuuxoo noonu turu wax naa leen ko already maa ngi wokk nit hopefully dinaa settle to this place where I will not say anyhow okay dañ bugg rek lu ñu dal wala liñ gis muy dal yeneen yi booleeg lu ñu dal ñuy gis muy luñ gis muy dal ñeneen yi pour lu ñu dal ñun mu génn loolu rek a tax dëgg la bëri nañ wax dafa am nit ñoo xam ne yàlla daf leen may ñu mun a wax ak nit ñoo xam ne mun nañ leneen kële mun na le kële mun na le àdduna noonu la waaye tamit soo gisee ñuy wax nekku ne just ko dañ bëri wax wala dañ bugg fame wala dañ ñeme Facebook wala dañ ñeme attention déedéet kenn ñemewu attention dalee ko si man bu leen ma gis ni de man tey su ngeen te xamoon du ma fa ñëw wala su ma ñëwee sa gannaaw lay taxaw even Facebook bi sax dama dee cuug sama bopp nii da ngeen waaye ak maa rus si li may def ngeen defoon ne rusuma ak maa si rus koo xam ni te suma xoolee dina xam ma bosoo ngi nit la man Gambie moo fa nekkee est-ce que mus naa dem kon benn yoon lay da war a ñaar fii sax xew dama ko dee daw ba nit ñi dañ ma abandon su programme amee wuu su fekkee dinaa demee si gannaaw lay taxaw ma gis nii de so it's like that you know it's hard to explain everything but hopefully understand ngeen lu may wax nii maa ngi ñëw dem like I said but suñ community bi yàlla nañu dimbale nag parce ñu ngi a jàng tuuti about life ñu ngi xala wecceeku tuuti but fu mu jaar rek ñu ginaa a open minded fu mu jaar rek ñu ginaa a understand ñun lu ñu jot parce que ñun ñu ñun ñëpp buñ toogee ñu jox ñu kaamil ne waat leen xam nañ ne ñun nit ñu baax lay nit yi Gambie ak Sénégal ñun ñëpp xam nañ ne dañ baax dañ buggante dañ mën a yërëm nit dañ mën a dimbalante this is just the reality tey tey soo fi nekkoon gàmbir wala sénégalais nga nekk si mbedd bi homeless taxaw danga xam ñu bëri ñu lay ubbi seen bunt bi jël jël la def naa ko te ba tey dinaa ko def danaa ko def su ma gisee ko homeless te nit ñi ba tey ñu ngi koy def soo bu ñu nit defee lu soxot mbala àdduna def ñu lu soxot mbala ñun ñu def keneen lu soxot bu mu tax ñu foog ñuy luus ko ñu foog ne ñun ñëpp bon the reality is feek ñu ngi foog na ñu ñëpp a bon wala feek ñu ngi joxe mbaaxaay jos su fekkee nit fa ñu def lu baax ñu def ko lu baax kon duñ mus a baax fu jaar ñu xam ne xam na ñoo xam ne par exemple def nañ lu bon waaye seen mistake yi àdduna la ida wecceeku nañ right now oo ñu ngi bugg chance pour wecceeku waaye soo nekkee di leen daw dafay gën a woos soo nekkee di leen wax nuñ bonee it saa yu ne su yàggee du du leen safati soo dañuy continuer fu mu jaar ñu continuer di joxante chance fu mu jaar ñu continuer su fekkee da nga a dund bon continuer nga dund bon su dee da nga bëgg a dund baax dundal baax bul xaar kii def lu baax yow nga soog a def lu baax kon yow baaxoo ngay naafeq da ngay confuse sa mind bi tey nga baax ba nga bon soo continuer di def lu baax rek su yàggee mën ngaa jàngal ni ñu bon ñi ni ñuy baaxee ah du moo gën nga jàngale ni ñuy baaxee dan nga leen di jàngal ni ñuy bonee bi kon ñu ngi bon think about so all this thing you know you know is something that i'm gonna work more on you know for 2020 because damay jàng uh, more mindfulness mindfulness soo ko jàngee rek di nga génn si any trauma boo dund naqat boo mënti dund sa àdduna ba mu téye la yëg nga ko woo yëgoo ko woo soo jàngee mindfulness yëpp dina génn xam ni ñu waxee mindfulness si xolof ba so loolu laa bëgg a jàng this year more you know and dem college and stuff like this and read more about you know so hopefully dina gën dimbale suma video yi dina gën a dimbale suma community bi you know and everything but yeah we can do ñun dinañ toog ba ni ñuy dawantee nii ak ni ñi ni ñuy lifinantee nii dina toog ba dinañ toog ba mu génn suñ doom yi you know jóg sa saay man moom suma video yi ko séddale noonu ko séddalewul noonu la parce que xam naa ne suma video yi ñu bari bëgguñ ko because dama dee talk about stuff yi nga xam ne dee real you know dalee ko si xeesal dalee ko si góor yi lu nekk laa di talk about lu nekk jot child marriage so moo tax ñu bari bëgguñ ma ak nu ma dee waxee sama message yi lu si bari dama dee ñëw rek pam so moo tax ñu bari bëgguñ ma saka jigéen yi soo ñu bari moo tax ma delete ñu bari sama Facebook bi te dinaa continuer di delete parce nit ñi nga xam ne for exemple dañ dee def Facebook and then suñ defee Facebook ma séddoo ko and su ma defee Facebook duñ ko séddoo eh, after at the end I'm just gonna be like ah who cares because may am xarit yu bari ñu ngi maa xaar but I don't think I'm gonna add any friend it's too much but yeah dinaa continuer may delete more people suma Facebook bi people that are just there for just being there and they're not doing nothing I don't even know them because to be honest Facebook bi rek moo booleeg leen woon time it's not like for example or oh, smaller delete I hate you. I don't hate no one. But I don't pretend either. This is why people don't like me. For example su ma la amee suma Facebook te su ma defee vidéo doo ko share waaye soo defee vidéo ma share ko for example su ma su ma la delete doo si mean I hate you. I just rather delete la dan ma bàyyi la foofu noonu ba pare maa ngi for example am suma mind bi naan kii lu tax suma vidéo te man maa ngi see vidéo xanaa oh, oh, a gën this type of thing so bala may nekk noonu di am list suma mind ma just delete la man suma life is so simple I'm like a two year old when it comes to life lu ma mun rek laay de lu ma munu kenn du ma ko choke yeah I'm tired of life choking me yeah but doesn't mean that I don't like it for example su ma la delete su ma gisee nga def vidéo boo xam ne keneen séddoo na ko dama koy séddoo am na nit ñoo xam ne dama leen delete waaye dama gis ñu def vidéo boo ne keneen séddoo ko te vidéo bu baax la dama ko dee séddale so it's not like I hate them that's du ma alaaw du ma alaaw jos damay def lu baax because nit ñaa ngee def lu baax su nit ñi defee lu bon damay def lu bon am not gonna allow that haven't said that am not saying ne nit ñi def la yeneen yi nga xam ne nii mun la koo dundoo pare ngay forcer pour dund ko non wax naa la suma beneen vidéo bul alaaw kenn mu lay dundloo naqat naqat boo xam ne mun loo koo dund bu ko dund su la nit di teg naqat boo xam ne mun loo koo dund wala di confuse sa mind bi di play di game sa mind bi doon alaaw de because it's all gonna add differently to stress, differently to stress, and then before you know it, your your mind is just gonna get used to the stress, and and that's it. You have to like clear your mind. We have stress, but don't allow the stress to have a space in your mind, you know, and just because the more comfortable the stress is in your mind, the more your life is just getting more miserable. So it's better soo amee dara loo xam ne daf lay métti daf lay naqaral nga try to stay away from it. you can try to talk to them dafa des su fekkee ne kooku noonu sa xarit la wala sa mbokk la wala sa partner la koo xam ne di nga mën a wax a moom nga wax moom balaa ngay just daw waaye soo try wax a moom so many time and it's not working then you just have to step away maybe you can step away for a while and then xëy na boromam xelam bi su ñëwaatee and then mun ngeen a delluwaat but bul forcer because soo forcer naqat bi suñ mayin bi nu mel at nit nu ko yàlla bindee mooy de ngay dund naqat bët bu set yaa ngi xëy di jaar si naqat bi su yàggee sa xol bi dafay miin naqat si su fekkee yaa ngi am partenaire wala nga am doom wala nga am nit koo xam ne bët bu set mu ngi lay naqaral sa bu suba soo xëyee wala dara loo xam ne saa woo ko gisee nga mer soo fa nekkee di ko gis bët bu set rek dafay su yàggee sa mayin bi dafay miin mer boobu noonu su ko miinee rek doo mun a tee kontaan genuine li so you lii yëpp lu ñu dee sonal la but hopefully suñ ko nekkee di wax and you know more and more people will understand it and it will help us it is actually amazing once you get a hang of it ngeen am good day maa dem léegi and dina leen gis mu leen gisatee bye take